Serigne Fallou Ndong chef de cabinet du maire de Thiès Est. Euh, bisub tay bi comme ni nga ko xamee maître Ousmane Diagne ko xam xamee ko ci mbirum sociale donc ginnaaw ba ñu euh, jëlee maire bi aussi suñu borom dénk ko ko mm, ak activités yi nga xam da doon def daan ko jëmale ci mbirum taalibe gi demee noonu moo tax tey jii mu amoon initiative avec euh, la commission santé commission religieuse et sociale ñu taxawal bis bi nga xam ne dañoo envisagé woon. jël lu tool ci cent cinquante enfants talibés et des particuliers aussi ñi nga xam ne dañ leen di tuddee comme ñu social volet social bi dugaloon leen ci néegu góor waaw loolu moo nekkoon bisub tey bi suñu borom dimbali ñu ci ñu am ci aussi ay partenaires ñi nga xam ne c'est des médecins chirurgiens ñi nga xam ne ñu ngi dëkk Thiès ñuy jógee ba yeneen dëkk yi ñëw jàpp ci bis bi ak en collaboration aussi avec les postes de santé de Thiès de Thiès Est mais aussi poste de santé euh, bu Sampaate aussi ñu leen di remercier en de passage ci seen taxawaay seen disponibilité ci depuis ba ñu jàppee bis ba léegi ñoom itam ñu sonn ci lool ci wutu médicament yi euh, ci salle yi nga xam ne aménagé nañu ko mettre aussi seen personnel yi yëpp à not disposition mu nekk li nga xam ne aussi ñu ngi ciy profité di leen ci e, remercier bi dafa nekk maître Ousmane Ndiaye dafa nekk nit sociale ba tax na képp ku ko xam rek mi ngi jéem nan lay contribuer dugalee loxoom ci mairie bi ci volet yëpp ba tax na aussi bi soo xoolee euh, c'est un ami médecin du nom de Cheikh Tidiane Dièye docteur Cheikh Tidiane mu ne ko moom dafa bëgg indi contribution aussi ci ci ci ci ci gestion mairie bi moo tax mu ne ko da ngay jàpp bis ma ñëw ak sama équipe ñëw defal la journée médicale bi nga xam ne yaay xool nan ngay ko bëggee ci loolu la ñu waxtaan ba ñu xam ne journée bi nga xam ne mooy journée bi ñu jàpp tey mooy journée de circoncision ñoo jàpp ni moom mën na nekk bis bu gën a am solo ci lu ñu mën a dugge euh, def activité ci côté côté santé moo tax euh, ñu jàppee ko noonu. comme ni ñuy waxee soo xoolee maire bi dafa bindu ñu def ay ay commission donc ci biir commission yooyu am na commission bu ñuy woowee commission euh, religieuse bi nga xam ne ñoom bien devant lii sax ñu ngi doon def benn liggéey bu am solo doon recenser daara yi nga xam ne ñoo nekk au niveau de Thiès Est donc ci recensement boobu noonu ci la ñu sukkandiku. Euh, informé sëriñu daara ñi nga xam ne ñoo nekk ci zone bi yëpp ku ci nekk ñu wax woo ko depuis ñu jàppee bis bi ne ko mu recensé ñu nombre de taalibe yi nga xam ne am na ko te bëgg ñu euh, te ñu war a dugg néewu góor te jotaguñu woon dugg donc ci loolu la ñu sukkandiku ba ñu paree aussi comme loo mënti gis aussi sociale sociale la am na ñi nga xam ne c'est pas des talibés mais aussi seen seen loxo jotul seen ginnaaw wala am nañu yéene def ko mais mënaguñ ko ñoom itam ñu ñu ñu signalé ñu boole leen ci liste loolu moo waral tey jii ñu am lu toll ci cent cinquante te daanaka sax dañoo wax cent cinquante mais ba léegi nii ñoom ñu ngi ci liggéey bi ndax euh, cent cinquante la ñu defoon comme objectif mais jusqu'à présent nit ñaa ngi continué di ñëw te xam nga nit ko am ci yow yaakaar aussi ñëw nee daa bëgg nga euh, boole ko ci jëf ju rafet ji ngay def da ngay obligé rek aussi boole ko ci. cinquante daara yi daara yi sax dañoo bari parce que ba ñu xoolee daara Thiès Est yi am na daara yi nga xam ne dañoo jugee hors donc ci ñuy jot a jàpp am nañ ci lu tool ci huit daara yi nga xam ne signalé nañu mais am na aussi ñeent daara yi nga xam ne bokkuñu sax Thiès Est benn bi mi ngi jógee Kër daaro dèjà mi ngi noon di ñibbi sax chauffeur bi di ko yóbbu pour mu mu mu dem am na ñi nga xam ne benn daara bi nga xam mi ngi jógee Mbourkat aussi euh, Ngumsaan aussi bokkul Thiès Est mais moom itam euh, am na ab daara bi nga xam ne foofu la jógee comme ni ma koy faral di waxee rek monsieur le maire dans ses dafay wax ni euh, c'est vrai que commune la gérée mais sooy def lu baax mënoo limité wu gis ni besoin yi mi ngi nekk ci beneen commune te ñooñu aussi soxla nañ ko amuñu ko leen ko defal nga ne non du ma leen ko defal parce que bokk lañ sama commune loolu moo tax ba ñu defee recensement yi aussi dañu ne comme ñoom itam bëgg nañ ko te jaral na leen ñu signalé wu ñun aussi nañ leen ci boole rek parce que jëf ju jaax jëf ju baax jëf ju baax parce que ci biir loolu avec la commission santé dañu prévoir daara bu nekk gox bi nga nekk ñu xool poste de santé bu la gën a jege. ñu boole la ak ñoom pour mu nga fay defee say say say kii say say euh, pansement donc non non du fay tout est pris en charge par la yi parce que ñun ren mooy suñu première année ñu nekk ci bopp maire bi donc dañuy wax ren mooy suñu premier édition ñu def ko te après maire aussi nee na bisub tey bi dañ koy xel di def chaque année incha allah tant mi ngi fii dina ko def donc moom sax da daan def bien avant muy doon maire. mais comme bii nii dafa nekk li nga xam ne mbirum municipalité bi donc suñuy compter dañuy compter à part de mu nekk première édition pour la mairie de Thiès Est waaw xanaa di remercier waat population thiessoise euh, particulièrement celle de Thiès Est mais aussi di remercier ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw dép ce matin jàpp ci ñenn ñi nekk ay dëkkandoo ñeneen ñi nekk ay conseillers nga xam ne ñoom ñëpp dañoo ñëw ku ci nekk sa doole li nga mën nga ñëw dugal ko ci Euh, ba yàlla dogal bis bi mel nii mais aussi di ñaaxaat population yi parce que xam naa ne ñu ngi ci sax di wane di leen xamal ni cees ak cees est surtout équipe bi nga xam ne moo ko jiite dafa nekk équipe bi nga xam dañoo bëgg a liggéey te résultat kese moo leen ñor donc ñu ngi ñaan bépp doomu cees fépp foo mën a nekk ñu ngi lay ñaan nga ñëw dugal sa loxo bu ko defee ñu changé xar kanamu cees mais aussi ñu développer Thiès ensemble.